lan nga yëgee woon nouvelle boobu jour maa génn ñi may dégg ñuy yuuxu ñuy yuuxu ma génn ma laajte ñu ne ma say doom la ma leen sant yàlla sunu borom dénkaane yàlla la sunu borom moo dénkaane moo nangu ba tey ji maa ngi dund naqar mhm. ndax saa yi ma xoolee sama photo doom yi am lu ma naqaree maaleykum internetu Sénégal ndax tey tey ñun ñëw doxantu fii Yoff euh, accident bu métti bi fi mois de cela 22 juillet bu ñaari xale bettoon seen bakkan tey seen yaay ñëw ñu jël ko xool un peu euh, ce que yaay ji assisté nañ ko mm, soxna si na def maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa internet bi yépp waaw waa accident bi moom marqué woon na Sénégal yëpp waaw. wax dëgg yàlla jour bu metti woon metti woon na trop foo ko natt wees na ba tey jii mun ma fàtte samay doom parce que doom yoo xamante ne yow yaa leen jur ëmb leen muy sa taaw ak sa ñetteelu doom nga amoon ci ñoom yaakaar. kenn mama Yande <clears throat> mooy kii ne sama ginnaaw am 7 ans keneen ki am trois ans nga amoon yaakaar camion boo xamante ne ñoo waray leen. nan la demee woon kamiyon euh, yi fan lañ leen fekkoon. pour nga camion bi mu leen fekkoon ci taxi bi moo seen rakku papa. mu mhm. leen fekkoon. fekkoon. Mhm. léegi yow lan nga woon nouvelle boobu jour damaa génn ñun ñi may dégg ñuy yuuxu ñuy yuuxu ma génn ma laajte ñu ne ma say doom la ma ne sant yàlla sunu borom dénkaane yàlla la. sunu borom moo dénkaane moo nangu. depuis boobu 22 juillet boobu mu nekk diis naqar Sénégal ba tey jii mu nekk lu ko ba tey jii ah. mu nekk dund naqar boobu noonu. ba tey jii maa ngi dund naqar. Mhm. ndax saa yi ma xoolee sama photo doom yi am lu ma naqaree. am lu ma naqaree trop. depuis boobu. Mhm. est-ce que jàppale nañ la est-ce que déjà ñi commettre woon accident accident boobu ñëw nañu seet si la massa wala. déedéet euh, borom camion bi rey sama doom yi ñëwuñu fi ay mbokkam ñëw fi kenn tegu fi seen tànk du kenn ku fi ñëw teg fi seen tànk ma amul. xanaa yow porté woo woon plainte. déedéet porté wu dama bàyyi lépp si loxo suñu borom porté wu ma mais tey est-ce que regretté woo loolu événement mu amee porté woo plainte. porté wu ma plainte parce que xaw ma woon fu ma ne. dama jaaxle woon dama jaaxle woon choqué wu ba pare même li ma doon wax xam naa ne li ma doon wax mbiru yàlla la te nangu naa ndogal suñu borom. ndax lu yóbbu yonent bi du fi bàyyi kenn mais anam bi dafa metti ci ay xale nga amoon ci ñoom yaakaar mais li gënoon rafet ñoom mënoon nañ ñëw masawu ma mais kenn defu ko. ba tey nii dix ba tey jii. kenn tegu fi vingt 22 juillet bi la am un an kenn ñëwu fi dégguma kenn gisuma kenn si ñoom. mel dund nga lu metti na. metti na trop. Mhm. metti na trop mais sant yàlla metti na trop foo ko natt wees na balaa ngay nelaw nga naan garab. balaa ngay nelaw ñëpp tëdd lan ngay dundee loolu dund bu metti laay dund ñàkk samay doom parce que ku nekk mu ngi toog ak doomam man gisuma samay doom dafa metti balaa may tëdd damay naan garab pour nelaw dafa metti metti na torop nga wax ñu am koy yande maman yaay yande gay mooy maman yande ak Seydina Mohamed gay ay doom yu la takkoon nañ waaw ñu ma takkoon ñoom rek laa xamoon ñoom tam man rek la ñu xamoon ñëpp xam ne ñam ni ma meloon ci doom dama naboon ci xale dama naboon am yaakaar nag si ñoom mais àddina du kër. Mm-hmm. waaw àddina du kër. mu mel depuis boobu yaa ngi ñuy wax ne da ngay naan ay garab pour mën a nelaw. waaw damay naan garab affaire daf la traumatisé. waaw daf ma traumatisé woon mu feebar ma ma dem hôpital ñu bindal ma garab tànk naanu ma garab du ma nelaw des fois mun naa toog nii sax dina forcé ne du ma jël garab. mais du ma nelaw daf may def méttitu bopp sama nopp yi di réer du ma nekk daal parce que boo ma fokkee rek da ngay gis may may man di ku agité di yëngatu rek parce que dafa metti boo leen xalaat sa sa sa xel si lan day dem. su ma leen di xalaat sama àddina day yàqu. su ma leen ma leen xalaatee sama àddina yàqu am lu ma naqari te su ma demee tamit seen bàmmeel tiim leen nii ñaanoon yàlla ñoom ñu tiim ma mais ma tey ma tiim leen am lu ma naqari. ñoom rek amoon si doom. ñetti bant laa amoon mais yaay Yande moo nekkoon sama taaw. ki ci diggante bi dafa jàngi mooy mu sax dafa jàngi. kii moo nekkoon ñetteel bi le premier juin bi la doon am 4 ans. léegi ban nouvelle nga am ci ñooñu leen <coughs> fiiroon borom camion bi borom camion bi waaw ban nouvelle nga am ci moom. ah nouvelle bi de mooy dama déggoon rek ci euh, télé bi journal ñu ne tëj nañ leen 6 mois loolu laa ci am. six mois waaw ba nga yëgee ne tëj nañ leen six mois choqué nga lan moo ma am lu ma naqari ma am lu ma naqari bi ma ko déggee mu metti ma metti ma trop foo ko natt wees na mu metti ma ma am lu ma naqari mais xamoo foo koy jooyee xamoo foo koy waxee ma jël lépp delluwaat ko suñu borom tegaat ko si loxo yàlla te ce que du du nga woon porté wul woon plainte xëy na moo tax ñu ma woon plainte wax dëgg yàlla mm-hmm. parce que xaw ma xaw ma xam nga nit boo xamulee xamoo fooy jaar moo tax porté wu ma plainte. mais 6 mois yu ñu ko tëj bàyyi leen def la métti yow yow mi seen yaay. waaw 6 mois yi leen tëj ñu bàyyi leen te si camion boo xamante ne dafa am 40 ans camion boo xamante ne dafa passé visite technique trois fois ñu rejeté ko ñu rey ñaari doom rey benn paa ñu tëj leen 6 mois ah su ma waxee neex na ma naqari na ma de. rawatina nag teguñu fi seen tànk masawu ma moom borom camion bi na ko natt ci boppam tey bu nekkoon ay doomam la ñu rey. ñaari doomam taawam ak beneen doomam ndax bu tëddee dina nelaw nga dégg ñu tëj na leen juróom benn weer génn te ñëwuñu fi ndax dina ko neex ku nekk na ko nattee si boppam soo ko nattee sa bopp rek dina doo sonn. est-ce que nag ba nga yégee ne tëj nañ 6 mois génn nañ amoon benn tànk boo dox pour loolu tamit ñu euh, xeex doxuma ci dara. Mm-hmm. doxuma ci dara. mais est am nañ ne benn. indemnisation buñ la jox bu ñu la dàmpee ndax bakkan moom kenn mënu ko fay. déedéet bakkan moom kenn mënu ko fay mais xëy na tamit ñu am benn ndàmpaay buñ la jox. waaw bu nekkoon boo nag say say pour say doom yi fi jóge la est-ce am nga loolu. waaw tey bu nekkoon tey alal mooy yëkkati samay doom kon heure bi jóg nañu kon kenn waxatu ko parce que xam naa ne seen maam dina taxaw seen mbokk yi dinañ taxaw man loolu xam naa ko mais ndàmpaay bi ngay wax gisuma ko dégguma ko gisuma ci dara. dara dara gisuma ko gisuma dara dégguma dara. même si autorité yi maire beeg yooyu loolu gisoo si kenn. si autorité yi de mun naa ci lim ñaar ñoo xamante ne gis naa leen koo xamante ne man gis naa ko ba tey loxoom jógul ci man muy Pape Mayel Diop directeur ADS mooy aéroport Dakar bi seen directeur ba tey ji may wax ak yow loxoom jógul ci man te benn yoon la ma gis. benn yoon lu ma gis mais loxoom jógul ci man nee na Fatoumata Tall tamit euh, Fatou Thiam woo na ko expliqué ko accident bi mu yónnee njaalam taxaw ci waaw mais gisaatuma keneen. gisaatoo ko fi ñi ko fiir tamit ñëwuñu. fi am benn ñi ko fiir ñëwuñu dégguma leen gisuma ay mbokkam. d'accord depuis loolu lan ngay dundee lan ngay dundee. instant bi li may dund sama doom yi. Mhm. dund bu metti rek parce que boo génnee gis ku nekk téye sa doom uuf sa doom sa rongoñ lay sotti. Mhm. ani sa borom kër. mu ngi fi. mu ngi fi. Mhm. nan lay jàppale ci situation lu muy lu mu lay jàppalee ci situation boobu. ah xam nga moom góor la moom góor la mais jigéen mooy ëmb mooy wasin jigéen mooy ëmb mooy wasin xam nga jigéen lu muy sentir góor sax mun na am day am kersa sax pour won la naqaram. naqaram mais yaay. yaay la rek amu remplaçant. tey lan moo changé sa àddina yow yow ban faatu faatu càndum nga woon ak léegi lan moo changé. waaw li changé si man ñi ma xamoon démb buñ ma gisee nii dañu ne xel bi dafa dem dafay li may ab absenté dafa bari mais sunu borom moo ma teg loxo sunu borom moom rek moo ma teg loxo du kenn ku ma teg loxo su dul yàlla yàlla rek a ma teg loxoom. mu mel ni métti na la métti na métti na kay métti na moom métti na trop trop trop te waa fondation Kër Rasoul sunu cheikh bi cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam bàyyiwu ma mu ngi yónnee ay ñaan ñaan bu mu def ci wedd salaati faatiya ci yonent bi lépp daf ma koy yónnee ci whatsapp. pour ma koy def maa ngi ko ci gërëm di ko ci sant bu baax. ndax affaire yi ba tey da la dafa des. ba tey dafa des mais est yaa ngi dem hôpital di def traitement. non non benn yoon laa dem hôpital bi ma feebaree ñu ñu xool ma consulter ma fekk sama cousine laa àndal moo ma yóbbu. expliquer leen kay mu ne leen see normal choc bi mu ngi koy soog a jàpp ñu bindal ma ay garab ne ma kii na koy naan muy mu tëdd parce que dafa traumatisé. tax mm-hmm. boo ko gisee nii sax toogam sax normalul day mel ni ku agité. te se normal ñàkk ñaari doom dafa metti benn sax dafa metti ma sama ñaar surtout ñu ngi doon jàng xale yi mama Yande mu ngi doon jàng parce que bu tey jii bu école ubbi woon mu ngi doon def tey quatrième tey mu doon def quatrième waaw parce que CP la jóge école ubbi woon tey mu ngi doon def quatrième mais jour boobu kañ nga leen mujjee woon gis jour boobu ndax moom ñëw na ci boppam moom <clears throat> mama mama Yande ak Mouhamed ñu toog Mouhamed ne ma naa ko jëndal café Touba ma koy ne déedéet duma la jëndal café Touba kaay nga naan meew mu ne moom du naan meew moom café tuubaa lay naan ma ne ko ah kay kaay nga toog nga naan meew mu ne ma déedéet yaay man ah, a jënd kafe tuubaa ndax réew mi Bamba mooy ki ko moom xam nga rek yëfu xale mu jënd café Touba toog mu ànd mama Yande ñëw mu ne seen rakku papa bi ñëw bu mu seen rakku papa bi ñëwee mu ne ko nañu ànd Ousmane nañ dem ànd sa appartement ñu xam fa ma ne ko de mama Yande da ngay toog ndaxte da nga war a firéeku ndaxte tabaski bi ñëw na ba pare pour ma dem santaane la ay létt mu ne ma déedéel yaay tey mercredi la damay bàyyi ba dimanche ma fireeku ma mun a léttu ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na rek mu xamee teg café bi ne ko yaay yande ñëwal ñu dem yande ñu dem ñu ànd ak seen rakku papa seen rakku papa bi ñëw ñu ànd ak moom ma woo seen papa bi ma ne leen boo leen di ñëw kon bàyyi leen sama kër yaay ma dinaa ko jëli mais nit boo waree dem kenn mënu la téye far ñu ñëw takk camion bi jaar seen kaw metti na trop metti na. Mhm. lan mooy sa dernier mot lan nga bëgg a wax tamit ñoo xam ne tamit. Euh, li ma bëgg a wax mooy. Mhm. Euh, nañu taxaw ci camion yi màgget yi parce que ñu ñu rey du samay doom rek doom yu bari dee nañ ci ci camion bi camion bi saay boo xëyee yaa ngi dégg camion bi rey na nit rey na rey na rey na camion yi ngay dégg rek te camion yi dañoo màgget. Mhm. te camion yi dañoo màgget loolu rek laay lancé. mel ni fan yi sax rey na ay journaliste tamit. rey na tamit ay journaliste ñetti journaliste rey bu metti ay camion boobu camion malien la mais camion camion la rek amul bu malien amul bu sénégalais mais lu ñu rey ci bakken dafa bari 2020 ba 2021 lu ñu rey dafa bari mais nag damay lancer appel président Macky Sall mu taxaw ci camion yu màgget yi na ci taxaw lu mu ci mën na ko ci taxaw. loolu la amoon pour jël ko parce que métti na trop. métti na sax affaire bi du ñoo jàpp metti na trop. métti na ñaan hmm? waaw en plus de cela feebar bi ñu la fekkee asthmatique nga. Hmm. ñàkk doom moom dafa métti. dafa metti waaw franchement. Hmm. yaan ma wéru ma nii dama forcé rek. yaa yaande mu xam naa. lu na ma trop. <laughs> manqué na la trop trop trop trop su may wax ay waxam sax sama xol bi day naqare. ndeysaan bëggoon yaayam massa. message bi nga lancé am na solo trop. Mm. camion yi ak yooyu noonu. Euh, sa doom bi fi des nag xëy na mu ngi lay jàppale un peu comme si mu laaj ah, des fois day toog guddeel laaj ma magam ak rakkam. da laaj. waaw ah, dama koy laaj. su ma ko waxee dañoo tukki après moom xam na mënuma teelee tukki wuñ gaañu nañ mën ko waaw. Mm-hmm. donc ñu ngi lay jaajëfal métti na trop ñun moo taxoon ñu ñëw fii seet la. Mm-hmm. wut sa contact ñëw ba fii seet la. xool ba mm-hmm. xam ñu ngi dundee situation parce que am na yaay yu bëri. perte nañ seen doom ñii. waaw ci accident surtout camion yi affaire bi métti. waaw na ci na ci président taxaw. ki ñu dénk tamit wàllu tali bi. ministre bi tamit na ci taxaw camion yu ñuy rey dafa bari te rey yu ñaaw la ñuy rey rey bu métti la ñuy rey boo tëddee guddi sax doo nelaw nañ ci taxaw lu ñu mën. lu ñu mën nañ ci taxaw parce que dafa metti dafa metti ndax boo xëyee di jàkkaarloo sa doom nga jékki saa ñu ne sa doom dem na kamiyo rey na leen ñu toogee noonu kamiyo yu màgget dafa metti de. metti na kay metti na ñu ngi lay jaajëfal. Mm-hmm. merci beaucoup. ok